Música mbokk nga xam ne moom mooy TFM nga xam ne moom mooy célébrité nga xam ne moom mooy TFM Yaa Awa ginnaaw bi mu génnee ay preuve nii émission bi ki nga xam ne moom mooy Amadou Kouyaté nekkoon fa caméraman moom moo ko ko di légué ñi la nga xam ne ñoom ñooy waa 2STV daal nañ riposté à ki nga xam ne moom mooy animateur moom nee émission bi waa 2STV ñoom ñoo ko daal di moom ki nga xam ne moom mooy directeur bu 2STV di El Hadj Ndiaye di nay porter plainte moom ki nga xam ne moom mooy Yaa Awa Bouba Ndour di directeur des programmes TFM kii di Amadou Kouyaté nekkoon fa caméraman moom ñoom ñett ñëpp la daal di porte plainte parce que nee na ñoom dañoo daal di jël li nga xam ne moom mooy moom daal di ne wax ne sax yaa awa contrat am depuis bi ñu ko signé en fële nga xam ne moom mooy 2STV jeexagul maanaam yaa awa mi ngi toujours en contrat ak waa 2 loolu nag nekk beneen rebondissement boo xam ne am na ci affaire bi nga xam ne moo yaa awa nekk fële nga xam ne mooy TFM ak loxo limametti point com ne dina continuer di leen toppal affaire bi ngir xam fan la mujjee ak problème bi nga xam ne moom moo sabab émission bi di célébrité religion continuer leen nag di topp site bi ngir am information cloche de notification bu leen ko fàtte moo leen di permettre ngeen mën am xibaar yi foo leen mënti toll ñu leen di jox rendez nag beneen yoon ci bi limametti point com ak yeneen actualité